sëriñ Maam Cerno ginnaaw bu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ wasila Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul yow it ñëwoon nañ fan yee nga defoon nga defoon benn commentaire ci Balla Gaye Modou Lo élection yi ñu gisaat sa benn vidéo nga def ci nga defaat ci beneen question boo xam si ne question boobu liñ ci wax wax dëgg yàlla gis nañ ko te leer na. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bu sant yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sant sama ñaan sama yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem. di siyaara bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha al xalifatu naam fil tahidal muridiyya di ñaan suñu borom yàggal ko ci loolu te wér ba mboolem mu fas yéene liggéeyal Cheikhul Khadim suñu borom defal ko ci lu kawe njootam waaw sëñ li nga lépp dëgg la loolu ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax ci noonu ñu ko waxee sans borom yàlla defale ñu ko ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee woon te noonu lañ ko suñu borom defale ñu sant ko bu baax santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla dafa dogaloon ne bi nga xamante ni Balla Gaye ak Modou Lo ñu ngi waaj a bëre dama cee def listixaar suñu borom wan ma ci ndam loo xam ne ci kaw la am ndam ci kaw Modou ma def ko audio publier ko ne leen Balla dana daan Modou Lo ci jël bu amul benn werante ba ma ko defee sax mën naa wax ne dégg naa ci lu ne ginnaaw bi loolu jàllee tamit ci laa defaat beneen vidéo boo xam xamante ni man vidéo bi yow mi yaa ma enregistré ma wax leen ne leen président Macky Sall dina am deuxième tey ci premier tour ci lay jàll ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala xamal leen ne leen ne loolu bu fekkente ne amul man sëñ maam Thierno ma dagg sama course noonu laa ko waxee woon yaakaar naa noonu la ko waxee woon tamit ngëm-ngëm laa ci amoon bu wér yàlla dimbali ma ba sama borom yàlla may ma ndam te loola ma ciy sant yàlla bu baax a baax a baax julli ci yonent bi alayhi salaatu di wax ne ñun de ay taalibe képp lañ di jëfandikoo alxuraan nekk ci li ñu war doon ay taalibe Sëñ Tuubaa yàlla dogal nag mbirum ñaan ñu doon loo xam ne dañ ko war doon ndax doon ñu ko doon dañoo fekk suñu waajur wi ñu jur di sëñ Abdoulaye Ndiaye muy yëngu ci wàllu ñaan ñu doon ci moom lu bari moom ci boppam mu yëkkati ñu jox ñu Serigne Saliou mu yaral ñu boppam Serigne Saliou lu def ñun ba ñu jógee ci moom yàlla dogal ñu dem nag sàkku jiwaat xam-xam ci yeneen réew yi ba ni suñu borom dogale ñu ñibbi si Touba ber suñu daaray bopp di yëngu ci wàllu wasalaat ginnaaw bañ ko dalee defal léegi nag ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax baax a baax a baax bari nañu fi ñëw de waaye képp ku fi ñëw li ëpp ci ñu fiy ñëw ci kàttanu suñu borom yàlla dogal na ne seen aaju fajoo loolu nag maa ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax di ci sant lu wér di xam ne lépp lu am rek yàlla la sëñ bi. waaw ah, sëñ dama lay laaj euh, benn question ndax juróomi candidat yi da tànn benn candidat ne mooy gagné premier tour te mënu nga ko waxee woon noonu la amee. non tànn mu woon benn candidat damaa waxoon ne Macky Sall mooy génn ci premier tour bi daal di wax ne Idrissa moo ciy topp Ousmane Sonko topp ci bu ci Ousmane topp Sonko toppee euh, ci biir moom itamit topp ci euh, nguur si yi nga xamante ni mooy maître Madické Niang moom itamit damaa waxoon ne moom itamit moom mooy jël daal noonu laa ko waxee woon tey noonu yàlla xam na noonu la ko wax ci lu waaw loolu loolu de moo am loolu de moo am waaye beneen laaj bi man de damaa dégg nga ne premier tour Macky Sall dana jàll te nit ñi doon xalaat naan deuxième tour ak deuxième tour dana jàll wala du jàll yow nga ñëw ne premier tour yàlla may la. loolu antu waaye yow sëñ bi est président Macky Sall sa président. yàlla xam na ne man duma politique man ku ma xam-xam ne bañ naa ko ba ay mbirum politique ak yooyu intéressé wu yàlla dafa dogal ne comme damay yëngu ci wàllu ñaan di yëngu ci lasaraat euh, bi ma defee sama lasaraat ci moom suñu borom wan ma loolu ah nit ki nag la la yàlla wan suñu borom wan la ko sañ ngaa taxaw wax ko bu fekkente ni dëgg la loolu moo ma ci dugal tax ma def ko. tey tamit yaakaar naa dama ko defee noonu la ma ko suñu borom waree noonu la ma ko suñu borom defaree ci kàttan suñu borom waree waaw sëñ Mame Thierno man dama gis ni ñu dugg ak génn. waaw fii moom ñi ngi dugg ak génn ñëpp dara andiwu leen fii loolu seeni soxla ñaan si rek moo leen fi andi may ñaan tamit euh, ci barkeb Seexul Xadim ci dara ji Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne mooy sama yaakaar yi àdduna ak yàlla àllaaxira képp ku fi ñëw am ci man yaakaar ñëw ci Serigne Mame Thierno Ndiaye borom baax. ngir diis ko sa soxla si boo fi jógee sa borom yàlla faj ko ca nam gën a waaw ndax damaa génn bu ma génnee sànq damaa daje ñaari soxna ñu ne fi lañ jógee ma introsé leen ne lu woon dañu ne ah ñu kat dañoo ñëwoon ci maam sëñ maam Thierno sëñ maam Thierno Ndiaye baax mu ngi doon ñaanal waaw fii moom ñi fiy ñëw bari dëgg yàlla ñi fiy bari na